ñoxo Baye Sow la fii ci Gambian Talents TV ànd ak yéen ci gannaaw microphone bi di Pa Ousmane Diouf niñ koy defee saa su nekk rek suñ laa show gis ngeen maa nga woon ba Atlanta Georgia nag am interview ak ki ñuy wax Alaaji Yakub Fatty Haidara ñu waxtaanee woon nag ci yëfi mbëggeel waxtaanee ak moom ci yëfi relationships ah, suñ communauté bi yu bari dañ koy déggate di ko laam-laamee ñoxo baay nag damaa tas yax bi rek waxtaan ak askan bi ah, ci li nga xam ne moom lañ bëgg a dégga ma laajoon alaaji Yankuba ba ne ko nag ñu ne sax xale yu góor yi toog seen jabar yi nekk ci seen période ñu ne bàyyi foos ñu dem ci ndax lu war la mu wax ñu li ci islam tollu ndax tamit nag ñi nekk ci long distance relationship gu métti gi nag di request ne nañ def video sexing and the like ndax lu war la lu ci islam wax mu tontuwul ñu ko nag oustaz lañ doon waxal ah, from the islamic perspective kon fi ñu nekk nii ni ma ko waxee rek ñoxo Show fii euh, la ñuy waxtaanee lépp loo xam ne moo lembe réew mi nag tey nag am mbégte kontaante te seeg ak jànqadaaj ji ndax jéeg bu ndaw la ban la si du benn du oh. jég du jànqa nuyu naa la Penda Sidibe suñ ne Penda Penda mu fan maa um, Alaaji Ali Bugam Bugam Baxal. Alaaji Ali Mbay Bugam Baxal ok waaye may grow up London Corner foofu noonu suma yaay suma ñoom maam ñoom ñoo ma waaw so waaye léegi maa ngi um, sëy suñ ci sori boori Costa Loop noonu. non ok. ok so maybe ñu bari xamuñ Penda. you were a head girl at some point SOS. naka tell us about your school days especially the days of being a head girl. yeah it was it was it was it was fulfilling to actually be part of um, different youth organizations in my school. Then not only inside the school but also outside, such as Bafro. You remember Bafro, mm-hmm. and we also had NAPSA. That's where I met you. And I think it, it was just good to, to be able to, to get involved and to meet other young people that are also in other schools as well. And so, you know, I have been very active when it comes to activities in my school, mm-hmm. like Radio SOS, um, you know, the Journalism Club, um, uh, Red Cross Society, um, Bafro, Islamic Club, all of them. I was, mm -hmm. I was just, you know, so keen to be part of those organizations because, you know, they helped me to, to, to actually also participate in issues that are affecting young people then, they were very young in issues that were affecting us, such as um, teenage pregnancy, early marriages, and um, you know, making sure that the girl child gets the maximum opportunity that, that they really need to prosper. And so, yeah, eventually I became the head girl of my school. That was um, 2001, 2002 academic year. And so from there we had this NAPSA that happened, and that's why I met you, that's why I met Gordon, um, because that was actually the biggest. Um, organization that I was in, and then I had the opportunity to meet people from SENS because then otherwise I may not have. <laughs> it was a boy, it's, it's still a boys' <laughs> school. so, yeah. Mention Ganapsa. Mm. And definitely, it's important that Gambians know. Is it true to say that you are one of the founding fathers of NAPSA? Yes. Look at the camera. Yes, we are one of one of the founding fathers of NAPSA. I remember in 2000, um, 2000 founding members, founding mothers, maybe. So, wax ñu NAPSA naka la Gambien yu bari xamuñ NAPSA ñëwee biñ koo foom si nga wax ñu penda naka NAPSA ñëwee. gënuma la koo xam de wax ñu NAPSA ñëwee. Um, so we were invited one time National Youth Conference. conference hmm. I don't know if it's National Youth Conference and Festival. And festival mm -hmm. every four years, three years, I can't remember, sorry. Why Lolula won, so Lolul Mohe won, and then we were invited to go, and all the head boys and head girls in the country then were invited by the, by the, you know, the former president. So we went there, and so it was just, it, I don't, I don't know whether it had happened before, but it was just this moment where you know, you see that we all had one thing in common. Mm -hmm. that we all had this, this thing that we all want to see that our fellow students, our fellow, you know, Gambians, you know, how many your face and school fees, well, you know, how many, how many voice, how many platform appearing, you know, you know, together, you this, it's good if we have this um, organization formed. And so it was formed you know, New York Hormone. And so after that, we realized that so many young people also wanted to be part of it. And so, well, I don't know. NAPSA was a pre-calculated move former president Yaya Jammeh ak ay ñoñam ñoom Baba Diop dañ doon bugg a damma laafi gamsu ñu ne nañ invite head boy yeeg head gaal yi put them together finance leen jox leen costa yu baax yu toog ñu dem bokk ci nekkof am ñu ñëw balla foofu noonu ba créer yenn ay ci seen loxo naka créer ye ay ne leen ok def leen nangam ak nangam is that what happened loolu noonu ñëwutoon suma xel lu ñëw suma xel rek moo nekk young people ñu ngi nekk together and ñu ngi um, go to to all the schools di def sensitization programs on different issues that were affecting young people then so man man loolu laa at that time gisee ma ko woon it was there pour mu génne Gamsu and all yoo xam nga ne bi NAPSA di door controversy bi was too much between NAPSA Gamsu waaye NAPSA replication lasu de dee Gamsu ñooy represent the interest of the general Gambia students uh, muy Gambia Student Union why they need to create another body. <laughs> nañu waxtaan suñ paree ñëw si lële. fàttewuloo dara fàttewuloo dara fàttewuloo dara hmm? ah waaw uh-huh. that was that might not be the notion mm-hmm. okay you may not have known initially initially you may not have known but uh, with time you will have to be told Penda history has to be told and has to be told the right way waaw su sa dégal mu ngi ut Latir Kala. Bamba Kan la. Nusrat we remember yéen head boy yi lañ invite. waaw ñoom Lisa. high schools head boys and head girls from different um, uh, across the country lañ invite on. and and and they were represented. Uh-huh. ñun first meeting bi Andrew Silva suñu head boy bi moo ñu represent on. Uh-huh. but then after that moom lu si bari fekkee wut dafa tukki woon dem Ireland for uh, dem Ireland. Uh-huh. but then yéen yéen a ko am naa dooma ci génnee yaa ngi ma naan waaw si bokka si bokka waaye yéen foom ñun ñu ñëw bokka hmm. hmm. am hmm. solo la seen school and I still remember that so ñun tam buñ demee seen school yéen tam ngeen ne ñun bokka te bokka ngeen si so yow sa bokka point of correction foofu. NAPSA had a strategy school buñ dem seet ñi fa gën a controversial ñi fa gënoon njaxlaf ñu mel ni Pa Ousmane that pose so many critical questions ñu xëcce ñu jël ñu. waxtaan ak ñun pour gomloo ñu ne yes this was there to represent the interest of the high school students. man I have to be honest again. Hmm. dama dee or lundi ak alxames du ma fen. so man amoon that notion te xam naa mm-hmm. yoo xam nga ne man waxuma ak yow. pour mm-hmm. nga ñu nga bokka man mm-hmm. xëccuma xëccuma kenn. ñun dañoo dem dañuy wax sun plan of action ak yooyu noonu. ngeen gis ko ngeen ne da ngeen a kon lu si boole woon Baba Jobe ak daasi. waaye léegi to be honest right now. Mm-hmm. Faa Ouz. Mm-hmm. man affaire yi naaf sax loolu mm-hmm. dafa yàgga. wax dëgg na yàlla yàgga na yàgga boo xam ne. après loolu noonu yeneen exécutive ñoo ñoo amoon. and they have you know ñu ñoo continuer programme léegi xaw ma na am na na amul sax. so do you remember who the first president was it's important nit ñi xam lii. the first president was Andrew Silva. Andrew Silva la woon. waaw suñu head boy bi aha aha aha. Bamba kan moo nekkoon di secretary general. nga am ma nekkoon di assistant secretary general. then um waaw. Mariama Sakho mm-hmm. dem mm-hmm. nga so mm-hmm. dem Kanilai every weekend dem Sooma jaara Sooma dugg ci Costa Karabay dem Sindola nag ñun ñëpp dem nañ Sindola Penda daf daan neex nag. Sindola daf daan neex nañ waxante dëgg dem nañ Sindola lu bari. njoogu reyal ñu xar. yooyu yëpp nafa na fa. te ñu ne student doon represent. yow su nekkee ne noonu nga ko gisee tam mm. ok because nekkul ne students yëpp ñoo mun a dem mm. feena mm-hmm. loolu la ñu loolu la loolu la ñu ne mm-hmm. there should be representation moo tax ñu mm-hmm. am président moo tax nga am like the legislation moo tax nga am the judiciary because ku nekk fànn bu nekk foog nga am ñoo xam ne dañ laa dee mun a am pour représenter. Mhm. man right now maa ngi fi maa ngi represent euh, PENMA. because mhm. PENMA mun PENMA ñi munu fee mhm. so représentation bi noonu la foog nga nekk fee nag. pour ñeneen ñu fa nekk. waaye lekka bi ak naan bi. tey loolu la tam man I don't know man loolu moom was may no man di most important thing moo nekk. di sax ne xam nga ñu doon mun a am pour jokkoo ñun students ñu ngi doon mun a am pour jokkoo. together di waxtaan ñun ñun ne suñu biir di dimbale wante man so what would léegi what would be your reaction to people ñi wax ne it was created xeet boo yeeg xeet gaali pour amal seen bopp opportunity dem foofu noonu mu jeefaa nekka di amin lekkoo naanoo bi suñ demee yaaya jamme jox leen xaalis ñu séddoo seen poos ba ñu si bari nag mujjee am opportunity ñu ngee ñëw ci penmar xam naa fa lañ jëm bon ñu ne ñu bari mujjee am opportunity ba tukki dem outside of the uh, Gambia sax yëpp the opportunities that would have been meant for the ordinary Gambian students, high school students, ñoo xam ne ñoom lañ waxoon ne ñoom la interest rather than Amin Lee because we see NAPSA members of NAPSA that ended up going to Cuba like Sen Masge Nyom Saho, we gave birth to Penmar. We had Nyom Latirka, Nyom asia to Nyom to jalo, ak nyene ñi head boy ak head gali ba ñi follow suit sax ñoom Fatmata Ndour ñëw ba mujjee dem uh, uh, uh, Taiwan dem jàngi foofu noonu. What would be your reaction to people who will say that? these are not, it's, it, it's sad that people mm -hmm. think that, you know, NAPSA, NUN, NYO, Demon, opportunity. So many people went to Taiwan, to Cuba, to Russia, and they were not part of NAPSA. Mm -hmm. At all, they were not part of the executive. They were not even a member of NAPSA. Mm-hmm. Then you know, you get them on mm-hmm. study. Well, why first opportunity opportunities in NAPSA members lah? Hmm? Because Cuba, yes, there were students there. Those students were not sent by the Hanga by by by not Neputon see government. We, mm-hmm. As in like, but government it was it was they, they, some of them were from education opinion. Why no matter what, you bring for jogging, sir. Other people went and they were on NAPSA. Guy, how much are we NAPSA? Here, they are So what what what is the big deal about this thing? Neputon mm-hmm. NAPSA NAPSA students like you want. Mm-hmm. So many other students went mm-hmm. and they were not part of NAPSA. How many want to send NAPSA? Look at the camera. NAPSA mm-hmm. was even existing mm-hmm. so loolu def ma jaaxal torop suñu waree ñëw di single out ne ñun dañ daan dem foofu noonu pour am opportunity or pour pour mun a jàng ak yooyu noonu man foog naa ne we were there for whole you know population, whole student population in Gambia. Mm -hmm. So what are some of the achievements, briefly, right, that you accomplished, sent back as executive, as the first executive of NAPSA? What are some of the accomplishments? It's not them na be NAPSA, them kanilai, di them funeka, be and like even president be, them na like you bari have those opportunities. But sidin jai bumuje neka National Assembly member, now very strong steward for NPP, actually it's through NAPSA that he became nominated nominated um, to, to, to a nominated National Assembly member. So loolu through NAPSA la woon ñu NAPSA was there to represent the interests of the high school students as said but it was only the executive members who were benefiting from NAPSA. léegi wax what are some of the achievements of NAPSA during your time. So the achievement boy, one of them were because some of the schools, some of them, and some of some of them, some of them, they will tell us their issues. For example, they had issues of you know um, paying their school fees, and so we channeled it through the um, Minister of Ministry of Ed Education foofu lañ ko so some of them help nañ leen si especially rural Gambia where xam nañ um, time boobu especially because I'm talking about like I mean twenty years ago mm-hmm. you know, ne duñ daan bugg a seen doomi jigéen ñu school you know loolu daf daa nekk problème trop so ñu ngi amoon this EFA campaign Education for All campaign boo xam ne ñun tam bokkoon nañ di dimbale gars yi di wax ak gars yi in local languages in rural Gambia ñu ne leen ne pour gars yi ñu jël seen doom yi seen doom yu jigéen yi ñu dugal leen um, ñu dem school ñu jànga because dañ dee gis ne tamit time boobu noonu dangaa gis koo xam ne jabaram mu ngi biir mu ngi war a am doom waaye dangaa dem nga gis am um, docteur bu góor wala nurse bu góor nga ne kii du laal suma jabar mm-hmm. you know that was that was that was a big deal mm-hmm. xam nga mm-hmm. so ñun tamit intervenir nañ foofu noonu waxtaan nañ ak gars yi daan dem gox tu gox laa la wax Gambia ba mu daj carton baara xooy mhm. na mhm. mhm. noonu yëpp dem nañ ba foofu noonu waxtaan nañ ak gars yi te noonu gisoon nañ ne ñu bari daal xam nga gis gis benefit jànga So advocacy was key on NAPSA's platform. It was key. You know that It was key. Not like. Set setali nak. Why set setali? Well, this is not. Yeah. You you you you you you you you you you you you you you you you you dega ko yen yena ɗon nder settetal yen yena ɗo nder settetal dega mune réconciliation du nafsat bebi de ɓulɗugaci gam bobu de sénogostine loolu du napsa baby de loolu du baby napsa de pour muy leer that is my <laughs> brain child that I initiated ñu boole si napsa of course because ñoom latir ñu ngi fa woon between Sensa Gambia High and education of course because they were asked to supervise the reconciliation by the president that's how Uh, NAPSA became involved. NAPSA played. a platform and you used NAPSA to get the platform. Really? Yes, you needed a platform. Put <laughs> a Really? really? Really? Did it? Did it? uh dem state house had nothing to do with NAPSA. head boy St. Augustine. ma ne. pour school prefects yi Saint Augustine si ñoo dem ba State House toog ak Yaya Jammeh the video is there on YouTube soo seetaanee video reconstitution bi di nga ko fa gis boy si eventually NAPSA bi mu demee ba sotti NAPSA was involved and NAPSA was part of it but si gàttal NAPSA was doing I said like yooyu noonu and eventually people like you had the opportunity pour dem Cuba ah. dem nañ ñii dem mhm. nañ Taiwan ñii dem nañ Russia ñii dem nañ Cuba dem damaa dem mhm. you know to mhm. so many so teg let's talk of this tamit um, foog according to man previous time time Jawara time boobu noonu man loolu wax dëgg na yàlla um, maa ngi nekkoon xale bu ndaw you know waaye dañ daan wax ne time boobu noonu opportunity you, yu amoon. Mm-hmm. like yóbbu ñoo xam ne bokk you are not related to them. you mm-hmm. you know you nga help leen. Mm-hmm. you are you know help you actually helping the nation. because here we are back again. and we are contributing towards the national development. of the Gambia. so Lola, so lady, we went to we went to Cuba. we studied there with the government. it was through the Minister of well um, of course facilitated by the former Hamga State House. then. The Nigerian jaar minister of education the ministry ministry bi then knew them, and then here we are. so you went to Cuba for how long. I went to Cuba for six years yeah so uh, we uh, we studied well when I when I say we I mean myself and Mariama and I even remember this was not by boobu mm-hmm. we also had other people You know, they are not part of NAFSA xamuñu leen sax Adama and they were part and, and they went with us. so just to mm-hmm. tell you that mm-hmm. um, it was not like only for NAFSA. Um, um, executive. executive or not only executive, only for NAPSA members. and it's mm-hmm. fine, it's okay. Why if you are selected to go and you and of course today Danko Danko Diza, why mm-hmm. not? Mm -hmm. but what how about the notion? You know, these are things Penda <laughs> I know you don't want to go through this, but it's good to tell history the right way. How about the notion ne yaya jamme made of seet janxa yu njool yi janxa yu rafet yi janxa yu ñu ñu la daan mun provide all these opportunities we've seen ñoom Toufa Diallo ak ñeneen ñi di test Stefan TRRC be saying a lot of things um, that people that were close to him for the most part yeneen dina did not moo def ak ñoom I mean intimate relationship and stuff am na ñooñu la dee jox opportunity for Turkey. is that the case with you what do you have any such experience well you, we were we were head boys and head girls mm-hmm. and then we had people like Elizabeth mm -hmm. Roberts mm -hmm. Elizabeth Robert Nice and all of that mm -hmm. were never or hairs mm-hmm. you know yaa kutugaal moom dafa ndaw moom kutugaal moom cuuj la kutugaal cuuj la so nekkul ne um, he had said ne I want X and Y Z I want pour ñu nekk head head head girl su ko defee ma mun a am this that didn't happen. Mm-hmm. waaye talking about all of this because after the TRRC all of mm-hmm. these. Um, Uh, mm-hmm. revelation revelations all of that mm-hmm. me i have to be honest mango suma digante ak yalla mm-hmm. ne man i did not experience anything like that mm-hmm. and mango suma digante ak yalla tam there was a time i came here 2013 mm-hmm. and i had phone calls people call me you know money um, if you want to stay you have to say that he abused you because people are doing that because hamon i was in napsa money i will not do that man i, man, I will not lie you 2013 bi nga ñëwé dama commencé wax yaaya jàmme rek nga daw bayima fa do hmm? because daan wax yaaya jàmme because people were ñu nga doon wax nga def maybe ñu ñun xamoon nañ what what what what was really going on man loolu xaw ma ko woon ñu ma bëgg a fen man ma ko noonu ma hmm. hmm. so you don't have that experience with yaaya ya, jàmme so like imagine pen njool mu ndaw nga de <laughs> te xé nga de penda da nga fit within his criteria bi criteria bi gay lay down xeese yee njool yu ndaw yi penda eh, hmm? hmm? Hmm? xoolal gars yi wax a ñoom waaw ok man <laughs> a um, bugguma fen because let's say for example ma fen ma fen ni daf ma abuse because people are saying it or because maa ko mere or because maa ngi dégg daf ko def then gars yi ñu na realize ne dama fen then what about ñoo xam ne dëgg dëgg abuse na leen you know so then people will start to question you always have to question those people know how they get mm-hmm. lolo happen. That's mm-hmm. mm-hmm. why we have to be very, very careful here. In as much as you want to you want to like, you know, um get evidence and all that, but you have to get evidence. Everything has to be on evidence. It's not because kiden na fofu li happen na kiden ko wara am kunna pa nyina ko even ko defute so déggu any friend tamit any friend si ñi ngeen fa nekkaloon kenn musta sàcca wax la ne la am na such an experience with Yaya Jammeh no kenn musu def loolu kenn musuta mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ah penda njool mu ndaw la xeese la criteria bi penda fit na ci criteria bi niñ ko waxee hmm? gis ngeen penda turu jàkkaar gis ngeen penda ah? kon de. Mm. sant naa yàlla bu baax. Mm. mais am naa ñaani yaay am naa ñaani mm. baay. am naa waaye loolu moom. Mm-hmm. amul. amul mm-hmm. so su ma waxee ne am na. Mm-hmm. loolu damay fen. su ma waxee ne am na. and we don't want people to lie it's it's good for people to say just the truth. it happened it happened. I am lying and I don't want to lie. and and loolu noonu. pour lan. pour am xaalis si jaaraat si. pour pour am kayit. mm-hmm. or Portuguese. Mm-hmm. No, mm-hmm. I'm sorry. okay. So let's talk about being going to Cuba. How was that experience like? Them obviously it's not an English speaking country. xam naa ne dégguñ fa olof saraxule moom <laughs> ak ak soose boobu moom làkku ko Cuba right. wow so how was it like i mean going there speaking cuban going there in this i mean cuba language. yeah wow yeah. How, how was the experience yeah. So what happened is it was it was not a nice experience in the beginning, of course, mm-hmm. because coming up here, um, they speak Spanish and we didn't speak any of that before we left, and so um, yeah. So when we went there, um, they had like this big room like dorm dormitory. I, I mm-hmm. never lived in a, in a dormitory before. Mm-hmm. Um, uh, much school yëpp maa ngi ko def kër ak school why must musuma musuma nekk see um, a boarding school if mm-hmm. you will so what happened is when we when we arrived I remember that very night yow la woon Saho ak Sehu man Saho Simon not Simon Simon okay Sehu daf have been fekka later no no Sehu Sehu Sehu ñëwutoon at all where did Sehu go Sehu never went to Cuba no never Oh, okay. Yeah. So you're Aksai Monaxeho. okay. And then we also had other people in your family. They were not part of NAPSA and mm -hmm. they were mm-hmm. with us. Mm -hmm. Yeah, so we, we, were in the same flight mm -hmm. um, together. Mm-hmm. And so when we went there. Okay, so ngene bi ngeen demee es ñu bari yena andon ci flight bi. right, so Simon, Simon spoke a little bit of um, Portuguese. Yes. So you knew Simon before, right? Simon sends the nekon. Napsa, yes. Uh huh. Mm-hmm. And so. Bali masibola na man bokk on nyom la on. <laughs> Napsa mo kilo kamen bae gis na asset la silen ma map. Map nyom naga ndem si ala si an. ah gars yi meeb ñu Baboucar ba mujjee ndeysaan la yàlla yokka leeram waaye dañ ñu mujjee meeb man suma maas gi yem bu tongole loo jéem kuwaay tindi dañ ma noppi loo yàgguma fa sax ñu kikaawut ma tamit eh, dañ ma kikaawut <laughs> di da bi ma commencé di collection si bari waaye anyway that's a whole story suñu amee ku ma interview ma wax suma part of the story waaye tey tey yow laay interview soo nañ wax ci yow déedéet nañ wax ci waaw léegi nañ wax <laughs> it was it was um xam like so when we went so Simon spoke a little bit of Portuguese okay so more more on the a xam translate ak yooyu noonu um with the with, with, with the guide there mm -hmm. so we arrived at night and so um, we were asked so they were like where are the Gamb like the two Gambians Monica and Mariama then to go to St. Fergus because they have different provinces mm -hmm. and so Simon and and Nemsiala uh, um Emmanuel Sani yal na ko yàlla yéen moom they went to you know to other provinces foofu noonu waaw so léegi ñoom dee na ba ñoom ñëpp a dem si yeneen provinces mm-hmm. so like what happened was um, we thought ne ñun mana Mariama we are going to be in in one in, in one room together. Mm -hmm. And so when they called us, we went and they opened this door and we saw like twenty beds, <laughs> like. Uh -huh. bunk bed, bunk bed, bed, uh huh, uh huh, uh huh, dome, uh huh. Dome, Caribbeans also get it in, and it was just so you know like emotional and mm -hmm. kind of like traumatized mm -hmm. in a way mm-hmm. because lolo do that, and so. Um, then we had to like scramble like mm-hmm. because all of us wanted the bottom bunk. Mm-hmm. The bottom bunk, we you know the Gina, well, first, uh huh. so what we were, and so Saho ended up getting getting Fanamo and bottom Manamo. Wow. So it, it was traumatizing because then. Like bottom will say, "We are not. Oh my God! What did I get myself into?" I know. And so <laughs> then they go, yeah, we used to cry every day, and mm -hmm. we used all the money that we had to call back home. oh my God! My grandparents. Yes, communication wasn't yeah, as effective as it is now, yeah, as efficient. Exactly. Yeah. Mm -hmm. No, no, no cell phones then. Mm -hmm. It mm-hmm, was it mm-hmm. was 2003. Um, well, no, no self was in Cuba, so mm-hmm. uh, it, it, was it was very it was tough. Mm-hmm. But then we also had another batch also that came shortly after Nyungunyewe. So this was when and Cuba was going through sanctions and all of this. Yeah, they still have the blockade. Mm-hmm. Yes, yeah. yes. I'm yeah. saying like time Bobula Gena, um, it was really tough at the time to. I mean, do anything. I mean, outside of Cuba, yeah, you know, everything internal. Yeah, hmm? yeah, exactly. Mm-hmm. So, um, so other Ghanaians also came, and some of them, of course, under the living condition, mm-hmm. because Cuba, they opened their doors to different countries mm-hmm. for um, you know students to come and learn their mm-hmm. different skills, which is mm-hmm. good. But mm-hmm. then obviously, because capacity can hunger, it's, it's a lot, mm-hmm. and so some of them, when they looked at, it, they're like, no, they're going back home. So no, I'm not. That, some people went back yeah, home. some people went back home uh, just after prep, like because we had to do one year of Spanish. Some of them immediately, immediately they finished their prep um, even before that, they were like, you know, had to go to embassy and like they, they, were, they went back home. But wow. of course we stayed because I knew that education is the key, you know, and so I stayed. And yeah. domoda benachini, benn cin gerte yu tilim yi da ngeen ko fa daan am duñ ko fa am foofu luñ daan am moo beans <laughs> potato beans waaw potato beans dañ daan am rice ñoom tam seen stable food bi rice comme Gambia a lot lot of chicken waaye chicken bi tam xam nga rek waaye yooyu noonu. to da daan mën a am seasoning yi tooga ko nii ne da ngeen waaw dañ daan a tooga sax foofu noonu waaye dañuy have these hot plates boo xam ne daan nuba because duñ daan a ñu tooga foofu noonu dañ ko daan jël ñu xam nga nuba ko then su inspecteur bi di ñëw ñu try def ko si loon si loon lal bi ak noonu xam nga waaye mu ngi tànn it was kind of you know right now, looking back, it's fun, mm -hmm. and mm-hmm. we just, I just wish I can go back to that moment, moment. at least for mm -hmm. a mm-hmm. day, to, mm -hmm. to mm-hmm. relieve what, what, what, what we played. Which yeah. university did you attend? CN Fuegos. Oh, okay. Yeah, the um, University of CN. Fuegos. What did you study there? Physiotherapy, physical therapy, and rehabilitation. Both you and Saho. And Saho, yes. Oh, okay. Um, for six years? For six years, yeah. Hmm. Actually, this program is a five-year program, and but we have to do one year of Spanish before we start. because um, everything fi mu nekk nii moom Spanish moom ku la ci gisem mooy loolu. Hmm? you speak Spanish fluently. yes. Hmm. ¿Qué <laughs> nii kay nada. <laughs> nada kay ah. Okay, so you finished that physiotherapy. When did you go back to Gambia? Have you ever been for been to holidays? Musngadem holiday Gambia, being neke Yes, yes, definitely. so we went 2003, 2003, 2004. We did the Spanish, and 2006 we had the opportunity um, of traveling to Gambia for holiday at 2007. Uh, 2007 wa. Oh, okay. 2007 Oh, so, then holiday, we uh, 2009, they had programmed and so we went back to Gambia. But So when we went, we knew that um, we didn't have a lot of physiotherapists in the country. Mm -hmm. So the only one that we had is um, the head, who is the head right now, Mr. Bachmom. He studied in England. And so we also had other physios mm -hmm. as well who were, um, you know, trained there locally. And so when we came back in 2009, uh, the hospital had said that they, they couldn't employ us because it, was Francis Small. was Francis, mm-hmm. Small Hospital. Mm-hmm. They said they couldn't employ us because they didn't have the I don't know it wasn't part of their budget or you know like needles things like that. And so trust me, we had to write back to State House mm-hmm. to tell them what happened. And man, I still have the executive order of that letter. Mm-hmm. Tell them we have to they have to employ us as soon as possible. So yeah, this time, and even now, the extreme things are happening, and I'm just like, why, why, why, why do we have to wait for somebody to like tell us to do what what we're supposed to be doing? Mm -hmm. but then, but then now talking about that an executive order, again, um, why would um, State House interfere in Edward Francis Small's um, uh, uh, administrative uh, procedures? So, can budget be pour higher land. Well, well. Was there a need for physical therapy at the hospital? That's what I said. I said we only had one qualified mm -hmm. Mr. who is currently the head of. Um, only one I'm at BSc level where uh -huh. he had a master's. Mm -hmm. Where apart from Lurken Amoko, and they needed us. ñeneen yëpp ñu train foofu la rek ñuy lifin waaw. comme auxiliary nurse in ñu daan def rek ñuy try di try ba gars am li. and physiotherapy was not even well known in the country. Mm -hmm. so you know, you yéen ngeen déedéet yéen and we were so frustrated man I I to be honest, mm -hmm. I was planning to just like I don't know, like get out of, of, of the country as soon as possible, Madam Fenen. But you know, you know, you know ah, this this brings is, is, is us back to you know, okay, well, yeah, Jamel Fenen only like pour branze eh, bopam I mean you na len dem ngeen study ñew and still eh, okay fokk ngeen eh, ne okay ndax you study University of the Gambia jeexal fofu you ñom they can write to state house to say employee in len what was the difference between you and those people? Because me, because man, I knew there was. They feel entitled. No, no, no, no, no. I was listening because me, I knew there was a need. Mm-hmm. No matter the Nyanyo holiday, the Nyanyo Slofa down here, we, mm-hmm. and even the the the the the, the, new, you know, Newfoundland, they were like, you know, they do a Nyanyo, they do a Nyanyo, and then they need to start because time I'm on WhatsApp. Um, what is the name again? A training of physiotherapy in the country mm -hmm. because you don't even have the personnel to actually you know, enhance the capacity of those people mm-hmm. and implement the need. And you, you, I don't know, but you should know, like when you go out, especially out of your country mm-hmm. and study, the experience that, that, that, that, you gather there, the infrastructure, everything that, that, that you see there, the knowledge, when mm-hmm. you come back, you really want to impact that. But you are so hungry mm-hmm. to do it. Mm-hmm. And you see people telling you, Mm-hmm. I mean what is that. were Lulu, i am not solo and you are right. but what were you what made you different ñaata need ñoo study America Europe other places they go back to Gambia and they cannot get employment but they cannot drive to the state house. so the point is. di connection with state house da ngeen am connection ak state house moo tax ngeen mën a def sañ-sañ boobu. well hmm? let me tell you su nekkoon ne xëy na um, I had maybe I don't know the ministry of education or ministry of justice I don't know because ñooñu ñooñu laa doon bind ma ma ma wax leen waaye sax waaye ñun xamoon nañu. Mm-hmm. maa yow. Mm-hmm. we know mm-hmm. that time boobu noonu ñu bari dañoo ragal a sax employ nit. you know they. because you were sent by Yahya Jammeh to go study when you came back you feel entitled to have an employment at Edward Francis Small. Well, man man man moom jëlee ko nu ko jëlee moo ne this guy is in need for physical therapists. Um, um, qualified people mm -hmm. to mm-hmm. work loolu laa doon bëgg laaj oh, léegi wax ñu rek waaw la lii ku dox liggéey ba sa gannaaw gi métti comme li ma fiil fi ma nekk nii rek loolu mooy woon seen liggéey nga ñëw rek toog rek ñu busal la sa gi loolu mooy physiothérapie di loolu ku nekk su ma toogoon sax su ma doom bu ndaw bi sa ne ko déggaatal ma suma gannaaw bi mu defal ma ko so yéen seen liggéey bi ban njëriñ la li ngeen doon jàng da ngeen doon yàqa suñu xaalis ci réew mi rek Um, loolu no. tam is a is a problem It's a notion boo xam ne ñu bari foog nañ ne physical bi massage rek waaye even even soo mm-hmm. foogee mm-hmm. na massage rek la yow koo xam ne foog nga ne massage la moo def kooku dem na jàng na muscles yi jàng na everything like jàng jàng na anatomy jàng na physiology mm-hmm. jàng na anatomy as in the structure of the human body jàng na physiology as in the way the human body works and all of that so jàng na yooyu noonu yëpp so yow let's say massage rek rek rek la borom loolu waaye borom xam all of these diseases and all of that. Mm-hmm. léegi yow kooku noonu pour mu masaaga sa moo gën nga wakkee mu dégg sa gannaaw because let's say soo amee like a little bit of tumor or something loo xam mu sa gannaaw moo xam ne mm-hmm. gis ne moo ko xam nga moo laa di soog yoo xamuloo ko mm-hmm. xëy loo ko xel boo xëy na sa skin bi there is a problem or you have like a little bit of deformity yoo xam ne you need further tests ak you know or yaa am back pain waaye back pain boo ne nii du loo massage yow xëy na with you xam nga mu évaluer la day do a thorough assessment on you su ko defee mooy la ok yow sa need i looy wax ni sa doom dox sa gannaaw what you mm-hmm. need is da nga nii pour see a urologist for example or su dee jigéen la xëy na borom dafa am something with the cervix with the with the cervix or mm-hmm. dafa am urine urine infection mm-hmm. urine infection tam mun na laa jox baat pain ak so many yow you rather not go koo xam ne xam na loolu noonu. Mhm. da nga dem si koo xam ne xale da nga ne ko kaay dox mhm. ah, sa jabar sa xale bu ndaw toog wala sa jabar sax su doxee sa gannaaw gi dégg nga maam <laughs> that feeling na. Ah. well ma ko bu ndaw la. Mhm. lu ndaw lu ndaw ndaw. are people ñoo xam ne they are loolu mooy seen liggéey ñoom des they, they, they study massage therapy. Mm -hmm. more massage, mm -hmm. and very good at it. Mm-hmm. And I respect them a lot. Mm we are physical therapists and rehabilitation, you know, no, like, sorry, and so involves so many things neurological problem, pediatric problem, pediatric problem. Um, cardiovascular, all of them, you know. Well, again, you ñu wàññi angale bi tuuti wala soo waxee loolu pediatrice neurologist all of those nga brégal ñu ko down ci fànna wolof su ko defee suñ mbokk yi ñoo déglu parce que réalité bi mooy euh, physical therapy is not very popular du loo xam ne lu am euh, fes la ci Gambia mm. léegi ñu waxtaan ak askan bi lan mooy liggéey physical therapist well physical therapy xam um, nga rek comme noo ko waxee ñoo mhm. xam am ay métit am disability disability for example xam nga rek ñun xam nañ ne di leading cause of disability léegi daf dee mun a stroke bu dee defar yi comme high blood comme ni ko dee waxee sa high blood so la mhm. high blood daanelee xam nga mhm. sa cëri ñu téye ak so ñu ñu dañoo treat pour to defee get back to there also pour gars ñu xam nga um, mun muna, am a functional um, ñu mun muna functional some of them dañ mën a dem normal because of the brain damage bu gay am waaye tamit mun nañoo function as in mun nañoo am des functional you know they, for, for them to have the, the, the, the functional capacity of for, for them to be able to have like do their physical activities, physical activities activities of daily of daily living, daily living okay mm-hmm. or ñoo xam ne for example xam nañ ne tamit diabetes dafa bari trop mm-hmm. Mhm. Ah, mhm. ñu dog dog mhm. ñu dog ñu dog seen tànka ngir diabetes bi ñu amee jabet bi nekk ci ñoom jabet bi nekk ci ñoom because of xam noonu tam suñu dogee seen tànka yi um, they, they, they need physiotherapy because they need to strengthen their muscles because ñoom tamit lu ñu bugg a mooy kooku képp koo xam ne dog nañ sa tànka ñun suñu faana mooy na borom doxaat mm-hmm. loolu moo tax ñu am di NRC foofu noonu National Rehabilitation Center mm-hmm. ñoo xam ne ñooñu noonu seen liggéey mooy pour ñu defal prosthesis ak yooyu noonu ñoo xam ne dañ mun a doxaat waaye loolu da nga war a am pour am a physiotherapist boo xam ne mm-hmm. dina wax even su dee xanaa mu nekk emergency waaye su dee emergency sax ñun mun nañoo jox lu ñoo wax psychological um, support to that individual parce que ñu bari Gambie soo demee affaire dox tànka boo dañu ne bàyyi ma ma dee ak suma feebar. ak suma suma cër yi daal di dox suma tànka because xamul. waaye ñun as physiotherapist su ñëwee ñu wax ak ñoom ñu ne leen ne dinañ soo paree depending on of course comme ni seet ndax am na amul ben complications. ndax amul benn feebar yoo xam ne underlying disease yoo xam ne dina ko or deformity boo xam ne dina ko mën a affecté ne du mun a sol prosthesis yi. waaye su ñu xamee ne yooyu dina a def. so even balaa amputation sax ñu dañ dee mun a ñëw ñu waxtaan ak moom ñu wax ko ne soo paree di mun a am tànk boo xam ne yow tam di mun a dox di dem di ñëw mm-hmm. xam nga yooyu yëpp dee mun a def mm-hmm. ak xale yi ñoo xam ne tam for exemple ñu ngi am cerebral palsy mm-hmm. cerebral palsy moo nekk xam ne ñu ngi wax ne xale yoo xam ne ñu ngi juddu waaye fekk ñu ngi am brain damage you know due to prenatal perinatal or postnatal xam nga ba xëy na balaa moo juddu jur Um, so boobu noonu tam xale yooyu tam dañu dee mën a am pour jox especially lot of um, education health education mm-hmm. seen yaay seen family bi because dañ dee woon ne xale yi ay kii ne dañ xale duñ mën a dem boppam waaye ñun suñ ko teelee xam ne dañuy bu baax xam nga mm-hmm. Ah, ñu treat ñooñu noonu am mm-hmm. some lot of orthopedic issues like xam nga fractures yi nii yoo xam ne after of course when the bone has consolidated yooyu noonu su ko defee borom mu mun a doxaat mu mun a ñemewaat yeah legi tànk rek ngeen dee def ndax lan suma baram bi mooy métti loo ma ci mun wax suma suma baram bi mooy mooy mooy métti waaw nga ko mun a fajal. waaw foog nga xam. foog ma seet ay ah. xam nga rek. Ah. ma join si ak yooyu. Ah. foog ma seet xam nga. muscle mhm. power bi. Mhm. foog ma joint mhm. nga xam lan moo ko waral njëkka <laughs> waaw suñ mhm. paree dinaa la wax su ko defee nga seetal ma suma baaraam bi tey ma am firi faj xaw ma ndax indi na bagage yi docteur am yeeg yooyu penda ñu ne yaay woon physical therapy yaaya am na ma amul njó yaay woon physical therapy penda loolu intimate na de déedéet physical thérapie nga dem jàkk